salaamaaleykum mbokki internet KM TV KM mu mel ni euh, ba tey sunu émission saytu sunuy invité d'honneur ñi ngi toog ak euh, monsieur Adama Ndiaye di conseiller municipal ak euh, monsieur Abdou Silla aussi di conseiller municipal ci Bagnères Yewwi Askan Wi mu mel ni monsieur Ada Xidmatul Xadim am nan programme woo nan la ñàkkul ni am na yëg-yëg boo xam te nii am nga ci par rapport woo bi nga xam te ni boole nañ la ko si seen biir ak euh, en tant que conseiller municipal ñàkkul loo xam te ni war nga koo mën a wax mu jëm ci askan wi ci par rapport représentant bi nga représenté ndaw ci biir mairie commune Kër Moussa bisimilah. waaw asalaamaaleykum euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam euh, comme ni nga ko waxee. def naa bokk naa ci conseil yi nga xamante ni ñoo dëkk Kër Moussa euh, di teewal yeewi askan wi ci biir mairie bi waaw di rafetlu li nga xamante ni mooy euh, lii di programme bi ñu fi tëral programme moo xamante ni yàgg doon ko def yàlla defee ñu ko daan teewee ay at ay ña at yi passé yëpp dañ ko déprogrammé woon ndax li fi xewoon ñu ñaan yàlla mu gëj fii di rafetlu rek organisation bi tamit di gërëm ñi koy xamante ni ñoo koy taxaw gis nañ ni at mu nekk rek ah day gën di yaaññi di gën di rafet ñu ñaan yàlla muy continuer nii di si am daal mbégte bu baax a baax a baax di fi di ko fekkee di ñëw di gërëm aussi ñi nga xamante ni ah bi ñu taxawalee programme bi boole nañu si te di leen si sant bu baax a baax ndax loolu yëg-yëg la di ñaan yàlla liñ siy jublu yëpp yàlla mottali ko yàlla def si ndam lii ñu si sonn yëpp ëllëgee mu nekk njëriñ te waa Kër Moussa yëpp jëriñoo ko jërëjëf monsieur Aada Adama Ndiaye di conseiller municipal mu mel ni question bi dama ko doon laaj Aada waaye xam na sëñ Abdou Karim en même temps yow ngay conseiller municipal war nga mën a tontu ci kii boobu parce que ndaw nga te lii nii li ko taxawal lépp ay ndaw lan kon ñàkkul ni am na taxawaay boo xam te ni war ngeen ko mën a taxaw ci commune euh, Kër Moussa loo xam te ni da ngeen fay boobaa da ngeen fay nekk représentant jeunesse bi nga xam te ñoom ne nekk fii ci taxaw lu mel nii ci ci commune Kër Moussa waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ko jox wàccuwaayam ma cëram ah di am contentement ak mbégte teew gi ñu teew ci bërëb bi ci événement bi en tant que ndaw ndawul dëkk bi waaye en tant que it waaye en tant que it koo xamante ni wóllëre mu nekk tànki wóllëre yoo xamante ni dañ ko dox suñu digganteeg euh, ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko téye nekk ay ndaw yu fasu yu takku ndax liggéeyal diine waaye di liggéey ci développement kon tey ji bu nu amee journée bu mel ni du nu am lu dul euh, du nu am lu dul kontaante ñëw teew ci di ñaan journée bi am réussite de gaa am na réussite parce que boo xoolee événement bi xam ni réussir na waaye ñuy ñaan yàlla ñu koy teewe at yu bëree bëree bari ci kàttanu sunu borom euh, lépp loo xamante ni ñu ngi ko ci sàkku ci yiw yàlla defal ñu ko defal ko mu saawaan baawaan ci bépp mbooleem jullit ak ci Sénégal ñu teewe ko at yu bëree bëree bari di leen sant di leen gërëm tamit ci honneur bi ngeen ñu defal euh, woo ñu ci bés bi boole ñu ci bés bi en tant que ndaw en tant que doomu dëkk bi conseillers yi aussi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu teewekaat yu bëree bëree bëri bëri jërëjëf. baax na jërëjëf kon mu mel ni Xidmatul Xaadim mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen delloo njukkal di leen jox seen wàccuwaay kon bismillah mën ngeen a àgg ci biir.